Mhm. sëñ Mass euh, balaa boobu damay nuyu euh, Aliou Sow. Mhm. Mhm. fan yii yëpp damay waral numéro am. nu sa numéro daf ma réer. Oh. mais ni ngay analyser ci plateau bii actualité. dafay sedd suma xol. waaw merci beaucoup. koy teg si yoon. di gindi Sénégalais koy rafetlu. macha allah euh, sëñ Mass li nga wax léegi nii. yàgg naa xew na ci réew mi xëj nga bii moo siiw. ñi amee feebar xel ñu leen di faj. ci ay bërëb man ma tuddee leen ay faux centre de guérison. Mhm. Euh, naka la ñuy fajee nit ki yàgg ngeen dégg ñu naan doful dafa réew. Mhm. doful dafa réew. absolument ay dóor lañuy fajee ñam feebaru xel maanaam dañuy jël seen fit. Mhm. léegi-léegi boo demee ci centre yooyu noonu bu la wanee ñu feebar da nga naan ñii wér nañ parce que loola wax loo ñu wax ko loola def loo ñu def ko c'est parce que quelque part dañ naan seen fit di leen dóor di leen. exploité di leen béyloo si ay tool. Hmm. xam naa fi xam naa fi ay domaines yu bëri ay zones yu bëri. mais ay malade mental yi ñu dugal ci ay tool ñuy bay. ci ay tool ñuy ñuy liggéey maanaam ñi ñuy def comme euh, comme genre booy ñu lay liggéeyloo man kilifa yi chaque fois muy wax ñoom. Hmm. mais soo waxee dañu lay tànkam. ok mais avant ça est-ce mën nga ñu dikkal ci li xew technopole d'abord. li xew technopole. Hmm. xale bi mu ngi tudd Mouhamadou. Moustapha Diagne. Mhm. man bi mu ko déggee. Mhm. parce que man ni mu noonu fu mu amee rek damay gë damay gëstu. Mhm. fekk na boobu sax. man 24 ans fekk na boobu sax ma dama ne woon mbirum malade man yi wax dëgg yàlla pare naa ci sonn naa ci. ba Abdoulaye Diouf Sarr demee. ba mu demee ma toog ak Marie Khemesse Ngom. man ko man dootuma xuloo ak ministre dootuma jàppanteeg ministre. yéen la yàlla dénk réew mi boo leen liggéeyee baax na. boo leen liggéeyee baax na. ok dikkal ñu ci bi d'abord. ñu Sénégalais euh, comprendre. Euh, Mouhamed Moustapha Diagne mhm. dafa amoon feebaru xel ok papam doon ko yóbbu hôpital psychiatrique bu Thiaroye mhm. mu am fa tan mais benn nijaayam moo ne papa ji il faut ñu boole ci affaire wolof mhm. loolu nag aada Sénégal la absolument bu la sa bët di métti sax ñu ne boole ci affaire wolof après papa daal di nangu mu dem ba teg teg na technopole xool fa ab centre ab centre la daal maanaam am ay bërëb jour bi muy am noonu day fekk euh, xale bi dañu koy sangat day ñëw yaa ji mu kenn chaque jour ñu koy sangat hmm. après ba mu ñibbi ok dernier jour bi dañ ne woon xale bi dafa am ku mu jàppanteeloon foofu ci biir ci biir centre bi hmm. ba am na ku mu ko jot ak gàncax baat ok yaay ji bi ñu ko yóbboo comme ku dem hôpital rek nga ànd sa doom hôpital toog di xaar médecin bi woo ko am ku ñëw ne ko moo ma ko mën Moustapha ak kaan yi ñooñu ba ñooñu dem xool la ba mu duggee hmm. yaay ji dégg ay dóor nee na vip dégg vip mun ne waaw xanaa lii di du ay dóor de nee dóor yàgg lool te tar lool yaay mu toog ci dëgg ba mu yàgg mu ne xaaral bu bu mu duggee rek fekk na xale baa ngi tëdd jaaxal mënatul dara daanaka sax daanaka sedd na. Hmm. daanaka sedd na donc nag muy lu doy waar. mais ñenn ñoo ko doon dóor. xam nga euh, kilifay kër ga un certain Madi. Hmm. néew foon jour boobu mais ñi ko doon ay employé ñoo fa nekkoon. Hmm. ñoo fa nekkoon bi ñu ko dóoree ba mu faatu ñu dugal ci taxi ñoom ñoom sax ñoo ko dugal ci taxi. Mhm. pour yóbbu ko Dominique. bi bi dugal ci taxi bi papa ji xam ne kii dee na gars yi daw mais nag ñu dem police Pikine def seen i investigation ñu fexe ba jàpp leen. Mhm. papa ji moo ma ne barki démb en su ma ne ko ah mu ne yi defeere nañ leen. ma ne ko ku la ko wax mu ne ma commissariat bu Pikine. Mhm. maanaam ñoom ñooy liggéey ci mbir mi defee nañ leen mais xam nga lan mooy problème bii nii. Mhm. mooy mbirum médecine traditionnelle ci biir ministère la santé. Mhm. Mhm. parce que la loi euh, sur la médecine traditionnelle ba léegi c' est dans le circuit. kenn voté ko. ok mais dañu def benn formule boo xam ni nit ñu bari mën nañu agir. ci wér-gu-yaram nit ñi ci état du ci xam dara. ok bëgg na fi à Dakar xam nga man bu ma gisee ñu tëjoon ay centre sëñ Modou Kara. ci wàllu drogue bu ñu tëjee yooyu centre mais état war na mën bàyyi xelam si yu mel nii am na ay bëri yu bëri appart bii. Mhm. am na yu bëri ci biir digg ndakaaru gii xam ne ay nit ñu ngi def les mêmes pratiques gis nañ ko ci YouTube bi gis gis nañ ko ci internet bi. ay nit yu mhm. tiim ay nit yu daanu rab. Mhm. ñooñu si bëri ay feebaru épilepsie la ñu yore mooy ñi nga xam ne dañuy say. day gis ñu lay dóor ba di la xoj naan waxal jinn bi na génn ci moom. yooyu yëpp c'est des choses yoo xam te ni état. daf ci war a bàyyi xel. Mhm. man démb toog naa sama kër démb ay nit ñoo fëgg ma sama doom ne ma papa am na ku lay seet ma entré leen njëkk te ñoom dañuy def benn benn promotion benn médecine bu bees boo xam ne américain ñoo ko fi indi ma leen nan la tudd ñu ne ma euh, thérapie. Mhm. magnétique. ma ne ça consiste à ñu génne ay appareil woon ma ne boo duggee YouTube nga fekk fa man leen est-ce que am ngeen autorisation ministère de la santé. ñu ne ma déedéet. ok foofu laa lay daggee mhm. euh, pour ñëw ci wax ji parce que lii c'est grave. Mhm. man jàpp naa ne lii dara gënu koo grave. Euh, Gomis euh, maxu Sénégal ngay gis. Mhm. tey jii ku jékki-jékki ubbi centre. amul autorisation état mais amoo benn benn dara luy lay na yow. am nga droit faj ay nit. ñu tuddee la sëriñ xaw ma xonqo ba xaw ma sëriñ mu ñuq mais nga nekk ci koñ bi. maladie ñu mais bu ñu xëyee dañ lay rang suba ba vingt heures. nga dugal nga mais yow yow da nga naan da nga naan bon jinne jinne yi ngay faj mais façon bi ñuy fajee nit ñi ne jinne la ñuy faj jinne jinne yi la ñuy génne jàpp nit ñi di dóor jàpp nit ñi di xoj di leen xëpp ndox naan jinne jinne ji génnal te souvent ma gis nga am na ñoo xamante ne xamuñu dara. Mm-hmm. ay complot la. dañuy dañuy dil ak ñi nga ñi nga xamante ne ñoom ñooy daanu kooku naan jinne ji génn mun a génn naa. mais quant koo xamante ne am na feebaru xel am na mesure yu ñu war a jël ci moom ba traité ko xam ne kii dañ ko war a faj mu wér mais lan moo ci indi dóor ba mu dee aussi Gomis ak aliso man moom laa comprendrewul mm-hmm. et puis loolu dañ ko war a réguler nit ki mënul jékki-jékki rek Gomis saa yoo xëyee rek gis ko sol xaftaanam teg euh, mbaxanaam yore kurusam ne day faji rab day faji jinn ci réew mu am yoon te cas bii moo feeñ am na yeneen cas yu nëbbu coo xamante ne boo ko xoon tey ji ñu ne la noo plainte la wala nangam te waa ji bu mu yëgee këram ci lay ñàkk ba kanam ñu ne jinne jee ko rey fekk jinne ji reyu ko waa ji ki ki mais traitement bi ñu ko traité ci biir kër gi euh, dóor ko dóor yi metti xëpp ko ndox xoj ko boo waxee gis nga ñi ànd ak accompagnant yi dañuy jooy sax du yuuxu mm-hmm. ñu naan la xojuñu waa ji jinne la ñuy xoj waa ji naan yaa ngi may rey mais mm-hmm. traitement boobu aussi loolu gis nga état yii la war a bàyyi xel dafa war a bàyyi xel malades mentaux yii et puis euh, stress bi ñuy dund ak jafe-jafe yi nii ku ne mën naa xëy dof mm-hmm. réew mii ku ne mën naa xëy am problème mental mais lii li li ma mënta comprendre mooy comme li Anse wax aussi traitement bi ñuy infliger malades mentaux yi ak centre yooyu xaw ma centre de redressement la xaw ma yenn centre la ku ko mën a def ak ku mën a doon dafa war a tegu ci yoon munoo jékki-jékki jël ay nit ma dugal leen ci ay mbaar mun a dugal leen ci ay ay néeg yu kenn xamul ah soi-disant yow koo mën a doon laa la wax ne dangay faj ñooñu te amoo ci autorisation di dóor di gaañ loolu aussi war nañ ko xolaat ci réew mi. xam nga Mass. Mhm. balaa ñuy joxoñ état man sama xalaat balaa ñuy joxoñ état di joxoñ tradipraticiens yi. Mhm. di joxoñ euh, maanaam euh, kii yi nañ ñu joxoñ ñun ñii ba d'abord ñun ñii gëm loolu ñun ñii. gëm loolu ñun d'abord yow mii di jël sa doom wala sa mag wala sa yaay di koy yóbbu foofu yow yaay le premier responsable xam nga sax parce que loolu nga gëm gëm-gëm bi la le problème so dafa ancré suñu société yaa ngi koy wax mhm. dafa ancré ba nga xam ne dégg nga tey jii ñoom solution nono ñoom médecine dégg nga traditionnelle ñoom loolu lañuy gëm un deux trois xale bi nekk na di di def nii rek ñu naan ah voilà rab jab la rek rab jinne nangam mais mm-hmm. yow jinne yow eh, eh, kii yow yaa ko gis est yow danga naan ay ay boo xam ne jinne bii mm-hmm. moo ko xoj gis jinne moom moo ko wax moom alors ba non mais c'est que non uy xam nga lan la ñoom sax ñoom ñi wax non non uy ma xoolal maas maas gisuñu jinne loolu laa lay expliquer dama ne la mm-hmm. xam nga nit yi nga boo toogee nii suñu société bi suñu toog en fait mm-hmm. dégg wax yi lii ñoom loolu lañu ñu gëm dañ ko gëm mm-hmm. ñoom ñoom dañoo jàpp ne dégg nga loolu moo jàppale et alors que feebar yooyu dafa am mm-hmm. dafa am ci nit ci ci ci ki nit day dem ba si yàgg perte mémoire euh, nangam mais am na nuñ koy fajee à l'hôpital mm-hmm. am na nuy traitement am na nangam c'est vrai mais li boo demee li na ci foo xam ne nag c'est pas reconnu par l'État mm-hmm. loo xam ne vraiment dégg nga nga dem foofu luñ dafa def yow yaa tooñ sa bopp parce que foofu laa bëggoon ñëw ah, léegi ceci étant lan moo war a nekk euh, responsabilité état waaw si euh, responsabilité état dafa dafa bëri sax ci ci mbir mi mm-hmm. parce que aussi état dafa war a réguler dafa war a xool aussi lii jafe-jafe yi askan wi am. Mhm. mais mais malades mentaux yi ci askan wi la bokk. Mhm. loolu gis nga gis nga Ansu li muy xeex nii yàgg na ko xeex. man dama koy yërëm. c'est vrai bàyyil bàyyil Ansu. Ansu maanaam. waaw mhm. mu ngi def rôle mu ngi def liggéeyam non non attends non. mais il va non uy ma xam nga lan la état tey jii bu defoon loolu. da ngay gis gars dañuy làqatu dem seeti gars yi. mais mais dañ koy dem clandestinement. Gomis Gomis ah, waaw non non arrête waay yow tamit. moom posé question. waaw li nga bëgg a wax nii. ay nangam gis nga kii. waaw mu ngi joué rôle am comme niñ ko ko. Euh, comme kii moom loolu moo ko effendi non. Mhm. waaw mais est-ce ko fi ma d'accord coach mais c'est que yéen yéen yi yow mi sa yow yow da nga ko gëm yow. <laughs> yow mi da nga gëm yooyu non on non de Dieu gis nga Sénégal. yow mi jinne da laa dugg ah, kii mi jinne da ko dugg moom la ñu war a dëppal voilà tu as vu voilà tu as vu léegi ñu ne voilà Gomis daanoon na rab non parce que daanu Gomis daanu na rab non non parce que kii jinne dugg na ko mais mais mais mais xam nga li ma tax ma expliquer loolu mooy tey ji état lim ci am mooy nit warul ubbi centre rek di faj damay faj nanga état xamul kii mooy kan li ma gën a betti mooy souvent dañuy ki ñu gën a gëm mooy ku jóge bitim réew déggul wolof est-ce que comprendre nga damay bañ a tooñ nag moo tax ma wax ne encore une fois am na ñu mën am nañu yàlla may. waaw yaa ngi ni di koy ah, ma wax daaneel aussi. parce que aussi xam-xam xam-xam yàlla moo koy maye. am na ñoo xamante ni ci alxuraan yàgg waaw ah, mais déglu ma coach aussi parce que damay bañ a tooñ coach moo tax moox la mhm. am na ñoo xamante ne yàlla moo leen may nga dem ci sëñ nga dem ci koo xamante ne am nga gis nga ko ba tàyyi sëñ Mass ñoom dañ lay dañ lay dañ lay ñaanal nga tane mais am na ñoo xamante ne c'est des charlatans ah, il faut ñu faire la différence est-ce que gëm nga ni am na ñoo xam ne yóbbu nañ leen ci guérisseur yooyu ñu am ci tan xam nga guérisseur bi dina faj feebar ñaar la soit médecine moderne di dina ko mën soit du ko mën su ko mënee su ko mënulee ñu yóbbu ko ci médecine traditionnelle mm. parce que boo jëlee wàllu ndëpp ca Tëngéej ak lébu yi mm-hmm. léegi léegi léegi da gis ku ñu ndëppal mu am résultat mm-hmm. mais li Mass wax yi mm-hmm. gis ñoo xam ne mën nañ ak ñoo xam ne mënuñu mm-hmm. ñoom ils vivent des de la difficulté des citoyens xam nañu waa ji feebar na ay mbokkam bëgg nañu wér ñuy lekk ci moom xaalis sachant que duñ ko mën a fekk loolu nag li li ci responsabilité état mooy que ne état ci boppam moom moo bàyyi ñu amee feebar xel ak seen bopp bu nit ki boo ko bàyyi ak boppam. Hmm. lu ko xelam may rek moom lay jël. dañ naan nit bu labbee ci géej boo ko taalee jël sax mu langaamu ci. Hmm. Hmm. parce que dafa bëgg a sauver wu. la même chose pour les personnes atteintes de maladie mentale man fenn yëpp laa chaque jour que jëfee am na ñu may woo benn jigéen. ba démb démb rek ndeysaan mi ngi ma woo yaayam. mu amee feebaru xel. daaw yàq na njàngam ndax feebaram deful bac. mu xamal ma ne am na fenn fu dem fii ci Ndakaaru def fa mois. bokkul mais amul tan léegi nag son mooy man naka laa koy dimbalee man alors que à Thiaroye amul place à fan amul place xam nga ñu ngi construire ay hôpitaux ñu ngi tabax ay hôpitaux yu bees ñu ngi réfectionné tey Dantec mais ana hôpital psychiatrique bu Thiaroye moo gën a feebar que ñi amee feebaru xel boo demee euh, euh, dans les régions fii ci Ndakaaru Nabil Choucair CTO hôpitaux hôpital boo dem amul fu ñuy fajee fam feebaru xel nga dem à l'intérieur du pays la hmm. même chose tam nit ki nit ki su fekkee ne mais dof yaa ngi tambambaalu ci ndakaaru gi mi ngi noonu euh, su fekkee li gën a garaaw gomis da ngay romb dof mu ñun ñoo ngi dof bu la ree yaa ñàkk de ñun ñoo ngi nii maas sol amul loi bi fenn fu mu ko kii suñu santé bi ci kaw nag mm-hmm. moo waroon na moom moom moo waroon na téye ñi nga xam ne état mun leen a faj donc cas bii nii mm-hmm. parce que xale yi lenn moo leen di faj gis nga garab yi ñu jox euh, ñam feebaru xel dalay rek stabiliser mais li lay wëral dëggantaan. mooy activité. il faut nga am ci loo nekk. maa ngi rappelé benn jeune yàgg na en mille 2002 en 2003 yu mel noonu. Mm. ay mbokkam woo ma ma orienté lañ ba ba dem caare gis nga bi mu génnee dama leen carrément na na na am liggéey ñu boole ko benn chauffeur camion xale boobu tey responsable la takk na jabar ba yor un mais bu ñu ko bàyyi woon noonu rek dafay gën di feebar. Mm. donc état moo war a organiser la santé boo demee en France. Mm. Aliou Sow sûrement war li may wax France seen budget laa wax seen budget en matière de santé daanaka li ci ëpp laa wax li ci gën a baax ci feebar xel lañ koy def parce que réew balaa muy jag il faut nit ñi ànd ak seen xel gis nga feebar xel bi benn la waaye mën a ñàkk mën a jëfandi ñàkk mën a jëfandikoo sa xel ñaar la te sénégalais yi tey li ci gën a bari boo jëlee téeméeri juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yëpp laa wax hmm. mënuñu xamuñu naka la ñuy jëfandikoo seen xel bu muy soxna ko léegi nii. Euh, da danaan rab la da danaan jinne la. Hmm. fois dit à mon grand lu mu xamul rek mun na jinne. jeex lu mu xamul rek mun na rab. Hmm. lu mu xamul laa wax mu ne rab wala jinne. Hmm. fekk ne feebaru épilepsie man am na benn ndaw bu nekk Tëngéej sëriñ bu gën a faj da ko terewul lekk ginaar bu lekk ginaar. ndaw si nee na koyite day toog ginaar ba mu baax. tëdd ci lekk. bi mu ñëwee c'est c'est mën na ko boo tomatee ginnaaw lekkal ma yóbbu ko ci docteur Boissy docteur Boissy bu nekk caaro yi mhm. mu def ko ay traitement jëkkëram ci boppam moo ñëw ànd ak jabaram ba ba sama kër di ma félicité ndaw si moom xam xam la la muy santé moom mhm. ans yaa tax ma lekk ginaar <laughs> non xam nga yooyu vraiment aussi depuis des années mhm. ah. lekkul ginaar c'est grave te bi mu ko lekkee bi mu ko lekkee lan la ko def ma ne dem ko dal fi mu nekk nii nii laa wax waaw bakk bakki dem la ñëw sama kër ah voilà la ñëw la sama kër c'est que gars ñi ñoo am na ci ko xam ne dafa ñëw ne ma waa ji jox na ma saafara man nag bul jël saafara bi su ma juumee ñëw la ma ans juum nga tànqal ci ndox robinet bi bu tànq bu jël sa bu jël sa tànqal ci robinet bi directement li li li la sëñ waxoon pour pour saafara bi nga def ci la même chose et vous aurez le même résultat xale bi daanu mun ne xaaral bu seet li ans wax mu tànq ndox ci robinet bi ñëw sotti xale bi rek xale bi normal mënu mm-hmm. ans léegi luy solution ma ne ko kii ko yóbbu hôpital Sicap bu Thiaroye kooku aussi mi ngi ci sëyam hmm. sëy euh, a ngi ne am na ay doom amaat ay doom te ba tey dara jot c'est très man bon c'est man réflexion d'ensemble la am ci mbir mi hmm. euh, euh, quand je vois en ci ci ci ci ci ci ci ni ñu am problème mu xel je me dis ni il n'a vraiment pas été aidé et je regrette beaucoup beaucoup surtout période bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi fi woon et il n'a jamais aidé ce monsieur justement je me rappelle de cet hôpital bi nga xam ne euh, mi ngi nekk Kaolack et vous aviez euh, euh, da si xeexoon lu bëree bëri dépensé ci beaucoup d' argent il me semble mm-hmm. autour de huit cent millions si justement ma mémoire est bonne encore mu waroon am suivi Euh, finalement foog naa ne mujjewul am suivi xaw ma lan lañ def ci tabax yooyu ñu tabaxoon foofu nga xam da nga ko bëggoon def un grand centre pour euh, ñi nga xam ne dañu am problème problème xel mhm. te gis naa ni Abdoulaye Diouf Sarr période bi mu fi toogee yëpp il mhm. s'est battu pour que loolu ñu reyante ko pour mu mën a tegu mhm. ñu mën ko continuer parce que je crois que régime Abdoulaye Wade nga ko ko amee woon nga amee woon euh, accord boobu je m'en souviens quand je tout de suite a jamais été aidé par par par, par l'État du Sénégal par rapport justement à ce travail formidable suivi et ça ça m'avait fait beaucoup de peine je me dis que ñi nga xam ne dañu am yàlla daf leen may euh, ñu am xam-xam ci ci loolu am yuñ ci mën mhm. wax dëgg yàlla waroon nañ leen dimbali gis naa ni mhm. Abdoulaye Diouf Sarr l'a négligé son départ mhm. maintenant la question c'est de savoir Marie Khemesse bi nga xam ne moom moo fi nekk qui dit que ni il assume elle assume euh, à la gestion de Abdoulaye Diouf est-ce que pare na aussi euh, pour pour orienter justement un petit peu liggéey boobu a xemes ci même euh, itinéraire ou même trajectoire que Abdoulaye Diouf Sarr si c'est le cas bu dernier bi ce serait véritablement un grand dommage mm. euh, pour euh, ñi nga xam ne dañu am ay problème mu xel mm. te nit kiy jàkkaarloog ñun wax dëgg yàlla prouvé ci Sénégal ni mm. il avait fait beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup d'efforts par rapport ça am lu ci xam aussi am ay seetlu yu bari ak ay njàngat yoo xam ne am na ko ci buñ ko ci dimbaliwul moi je dis que ce serait dommage ce serait dommage donc un appel de mais xam nga du <laughs> mooy li may expliquer nii rek. Ah, xam nga yenn centre yi xam nga gis nga euh, maas euh, xam nga loolu noo koy expliquer xam nga xam nga jàpp xam nga xam nga fii. man man man yooyu loolu lan la ay ay nit ñu xam dañu leen di xaw ma ngeen man affaire jinne yooyu c'est quoi ce truc loolu est-ce que mu amee xam nga yooyu yëfu dof la xam nga ay jàpp ne di ko dóor di ko wax waxal doo xam ndax gars yi dañuy teg ay dil ak ki ñuy dóor pour waxloo ko ni nga waxee noonu donc di dofloo sénégalais ñëpp di xëy di dem ci béréb yooyu ku am sa cinquante mille ak sa cent mille nga dajale ko dem yóbbu ko ci quoi zahir bi wala baatin bi mm. zahir bi nag leer na nañ mm-hmm. mooy yi ñuy wax nii mbirum hôpital mm-hmm. hôpitaux psychiatrique yi mm-hmm. euh, baatin bi nag mooy ci mi nga xam ne jóge na ci alxuraan en tout cas euh, chaque euh, maas waxtu wi xoj nañu mais vraiment bi amoon na oh, solo waaw bon fi may fi may daan lee rek fenn la rek aussi ah que nañu bàyyi xel malade mentaux yi aussi quoi et puis am na ñu ñu xam ñoo xamante histoire bi pour wax nit ñi ne maanaam ñi dóor waa ji defere nañ leen mm. mm. defere nañ leen est-ce nga mais état waru yem foofu dafa war a xool saytu. ñiy woote ne mën nañu. Mhm. gomis nee na day faj rab. nañ woo gumis mu toog fii. non exemple laa la jël. non non non non c'est pas non non waxuloo exemple. non non waxuloo exemple. après nga wax exemple. xoolal arrêté mii laa gis yow mii laa gis ak sa ak ak sa ndox boobu yow yaa fi joxoon doon daanu rab fii. da koy jox ndox. ay euh, rek lay métti mm-hmm. mooy li xew yëpp nii. président Macky Sall kese la nag. ma président Macky Sall mi yàlla dénk réew mi. Mm-hmm. mu war a ñëpp. Mm-hmm. moo lànk ne du jaboote ñoom feebaru xel. dafa lànk ba tëdd ci suuf na jaboote ñoom feebaru xel xool euh, boobu bi Covid bi ñëwee. ñu génnee 1000 milliards pour les couches vulnérables. zéro franc pour les malades ñu génnee 43 milliards ci élection avancé législative di yónnee ay quatre-vingt mille francs mm-hmm. ñu bàyyi fi malade menté mm-hmm. euh, euh, les associations de personnes handicapées seen subvention nga xam ne depuis janvier lañ ko war jot cinq cent mille la woon ñu wàññi ko ba trois cent mille ba fii may wax ak yéen nii ñu amee euh, laago seen subvention génnul Marie Khemesse nag toog naa ak moom mm-hmm. ma am ci moom yaakaar waaye xamal naa ko ne ko mbir mi mu ngi ci ay loxoom bu liggéeyee Sénégal la gis seen bopp bu liggéeyul sénégalais gis seen bopp. Mhm. elle m'a rassuré nag. Mhm. kenn dana liggéey man maa ngi toog nag. di ko xaar parce que mënu ma. Mhm. comme di ko toog toog naa fii ci benn plateau man ak Cheikh Tidiane Gomis man ak euh, Aliou bi ñu jàppante fi. jàppante bu metti parce que boobu mi ngi naan waa ji daf ma nax. naxuma dafa jubutoon. man ñun ñoo xeex. ñun ñoo xeex. ne nañu dàq Abdoulaye Diouf Sarr ñu koy sante yàlla ba ñu dàq. d'accord kon jii li fi des mooy. président Macky Sall ci boppam. man lay woo mu taxaw si ñu amee feebaru xel bu demee bay may ay kat kat bu demee li li alal ji mu génnee ci élection législative yi. Mm. bu ci génnoon dixième bi rek. faj na tous les malades moo tax moo tax man président Macky Sall aussi. mën na saafara mm. amatuma lu ma ko ñaan. Mm-hmm. li ma ko mën mooy condamner mm-hmm. son silence. Mm-hmm. par rapport à la souffrance de ces malades mentaux. il y a beaucoup de familles sénégalaises. ñu ngi ñu ngi ñu ngi dund loo xam ni. kenn xamul naka la. Mm. sama xol bi li ci nekk benn waaye daf ne mais Ansu dafa jeex. Mm. mu ne ko Ansu mënut am mënul am yaram. Mm. parce que fu ma toll. Sow mën na yéen ñëpp seetlu ngeen loolu ci man. Aliou ni mu ni mu bëggee réew mi changé réew mi dox. man benn pàcc rek moom ci intéressé mooy ñi amee feebar bu ma yàlla dimbala woon ba ñoom ñëpp ma génne la ci bedd bi on a la capacité am nañu xam-xam bi mais lenn moo des ñu jàppale ñu te Macky Sall moo ñu war a jàppale. te mhm. jàppalewu ñu ma koy wax fii ci plateau bi ne ñu ngi koy jox carton rouge. Mhm. ayca yàlla mhm. yàlla baax na en tout yow ñu ngi lay ñu parce que ku ne gis na liggéey bu am solo bi nga xamante ne yaa koy amal ci wàllu bi c'est pas du tout évident donc yàlla baax na yàlla kàttanal rek maas ñu lay jaajëfal yow. ma lay ma lay jaajëfal.